fii ci Mbàkke itam bi nga xamante ni ki nga xam ne moom la ñu àndal muy sunu maire Gallo Ba bi mu jëlee dëkk bi gis nañ ay jéego yoo xamante ni tàmbali na muy lu mel ni tali bi nga xam moo war a jógee mbakke jëm Daaru Salaam ak yeneen yoo xam ñu ngi ko fiy tàmbali ñuy ñu koy ñaan bu baax a baax ak réalisation yooyu lu mel ni commune Mbàkke wax dëgg yàlla yitteel na ko te Mbàkke itam dafa am dayo ci Sénégal kon lu mel ni hôpital niveau 3 wax dëgg yàlla waa Mbàkke ñu ngi koy jooytu ñu ngi koy ñaan njiitu réew mi lu mel ni ay tali war nañu ko mën a yokkaat ci dëkk bi lu mel ne assainissement itam war nañu ko yokkaat ci dëkk bi ba bëgg nañ itam cadre yi nga xamante ñoo nekk fii ci Mbàkke ñooy cadre yoo xamante wax dëgg yàlla jàmbaar lañ jàng nañ am nañ taxawaay suñu sañoon maanaam li nga xamante ni moom la président di joxe mu jox leen ko nga xamante ni Mbàkke dana am taxawaay bu am solo ci gouvernement bi rawatina itam bu ñu àggee ci élection yi danañ fas yéenee taxaw ba liste bii gañe waaye bu ñu gañee itam ñoo ngi ñaan président bu mu fàttee Mbàkke ndax Mbàkke war na am ay ministre war na am ay directeur war na am yeneen nag yeneen ak yeneen beneen bi ci des it mouvement bi dana yëngu lu jëm ci wàllu social ndax dëkk bi ku nekk xam ne ne bari na fi ñoo xamante ni seen eh, loxo jotul seen gannaaw ba tax kon danañ liggéey ci loolu fas yéene leen a jàppale xam ne nag moom lañ ciy tàllal loxo ngir fas yéene cee ànd ak moom mooy fondation Servir le Sénégal te soxna Marième fay Sall jiite ko fas nañoo yéene lëkkaloog moom ci jàppale ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci euh, dëkk bi moo xam lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram la moo xam lu jëm ci wàllu leneen ak leneen lu mel ne wàllu développement itam mouvement bi dana ci fas yéene taxaw kon ñuy sàkku li nga xamante ni mooy mbay mi ñëpp xam nañu dafa am solo te buñ ko joxee li ci war rek yaakaar naa mën na dundal Sénégal te departement Mbacké wax dëgg yàlla am nañ ci taxawaay kon ba tax na ñu ngi lancé président de la république mu gën a jàppandal baykat yi lu mel ni jiw lu mel ni engrais lu mel ni matériel agricole lu mel ni itam wàllu càmm gi loolu itam bëgg nañ mu dooleel leen ci bu baax a baax ñi nga xam ne itam ñoo taxawal lii di ay kilifay diine wax dëgg yàlla ñu ci bëri jàng nañ moo xam nasaraan ñoo xam arab ñun nekk ñoo xam ne am nañ ay diplôme su ko defee itam mu bàyyi leen xel bu baax a baax ñi nga xam ne daal mooy mouvement bi li leen tax a mooy lu jëm ci wàllu social lu jëm ci wàllu développement waaye itam lu jëm ci fésal liggéey bi nga xamante moom lañ njiitu réew mi taxawal yàlla dogal nag ki nga xam ne moom lañ ko àndaloon itam mooy meeru dëkk bi di Galaba ñu fas yéene koo gunge ci cinq yi nga xam ne moom lañ mal ci lépp loo xamante jooytul Mbàkke la ñu ànd jooytule leen ko ba Mbàkke jëm ci kanam te am nañ ci yaakaar bu baax a baax. muy Serigne Cheikh Abdou Mbacke Baara Dolli yàlla dogal di sunu mbokk yàlla dogal itam am nattu dal ko te yaakaar naa du benn jullit wala benn doomu aadama li nattu di dal ñu ko koy yéene kon ñi ngi ànd ak moom di ko méttitlu te di ñaan yàlla loolu sunu borom génn ko ci. waaye tamit bokk na li tax sax mouvement bi taxaw su ko defee ñun ci suñu taxawaay ñu xam ne itam li nga xamante ni moom lañ ñu yaree ñu war cee nekk mooy euh, sunuy politique ñu teg ko ci maanaam anam woo xamante ni ku ci nekk li nga bëgg wax da nga ko wax te doo gaañ kenn yaakaar naa ku ci nekk li nga bëgg a wax mën nga koo génne te doo gaañ kenn foofu daal la ñuy invité kilifa diine yi la ñuy invité ñëpp ku ci ne am nga sañ-sañ wax waaye booy waxit na nga bàyyi xel ne ki ngay waxal maanaam euh, bàyyi la ki ngay waxal yaay la ki ngay waxal bàjjan la mag la su ko defee kàddu yi mën ko ko génnee noo xam ne danga ko wax te du gànceen waaye ñi ngi ñaan daal lu mel ni muy njuumte yàlla bu mu fi amaat ku ne ci li nga xam ne xalaat nañ ko ñu fii sax ñoo ngi lancé waale appel fii di ñaan njiitu mi nit day juum ñoo xam ne Serigne Abdou Mbacke dafa juum ñuy ñaan président mu jéggal ko ngir sunu jëm